Grand Yoff ak Patte ak yeneen marché yi nga xamante ni fa jaaykat yi daan lal yile fan dañ leen kaa aay ngir naqaru nag yow yi lay déguerpissement lël bi ëmb marchand ambulant yu nekk Petersen bëggoon amal ab conférence de presse police moo leen daal di jiitu ci yooyu le barab ki fi nekkoon candidat te candidature am jàllul Dame Badiane ak ñeneen ñu daal di leen teg loxo ñeneen ñi nag police di leen dànkaafu ne leen bëgguñu ñuy waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di taskatu xabaar yi. loole jaaru yoon nag. ñoo gën a bëgg a bàyyi tale bi di la si mbedd bi ñu ñuy sonal di ñu ramaas bëgguñu ko ndax ñun ñëpp ay kii lañ ay responsable lañ yor suñu soxna daal suñu doole. yàq tax a jóg dafa moo ñu tax jóg. keneen nag daanaka dafa nëbbatu ngir mën a wax ak ñun moom nag mu ñëw rek di dëggal li moroomam bi daal di wax. fii dañoo mayut jàmm quoi yaa ngi ñu jàmm mayu ñu salaam. léegi aaye dañ kese wala. dañu fi aaye lal boo taxawee ñu jàppale mi ngi nii di ma jàpp si. commandant bi nag nekkoon ci barab bi di daal di xool bu dee kenn waxtaanuwul ak taskatu xabaar yi bam ñu jegee nag lañu ñu daal di aaye. ñoom jaaykat yi nag ñoom ñu fare ca Petersen naqar la ñu daal di am gannaaw bañ dooree di leen fa jëlee ba léegi muñ sukkandikoo ci ñoom nag am nañ yaakaar ni njiit bu bees bi dina leen wutal feneen fu leen yóbbu